comme réew mi léegi waxukaay dafa yomb. ku ne di wax. barki sëñ bi lii ku ci Sonko jógul réew mi lii koy taxawal. xanaa moo koy tax. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما on va parler dégg naa sama xarit bi nag moom oustaz Modou Fall sànq wax na bal <laughs> nee na leen man maa tay Modou mooy gëree moom moo yow daal tay ngeen ko bàyyi ak moom rek non man waxaguma Modou waxagum rek xam nga Modou moom maa gën a ñeme lu <laughs> nga Modou rek déedéet Modou dama koy feelu ak Modou dañoo peeroo sama gaayan la xam nga ngay yendoo di nelaw doo xam li xew. di nelaw yow rek ndaka di dëkk baa ngi toj. da ngay sonn ñu def ay live. di wax rek. lu ñor lu ñorul. dégg naa ndaama Ik kurkur boobu Aïssatou Diop Fall dégg dafa wax moom waaw Aïssatou Diop Fall kooku wér booy. de gars yi moom Aïssatou de nit ku baax la. Aïssatou Diop fu mu nekk léegi mi ngi TFM Ik léegi wala. TFM ko glace la ne daa ko ñu ko mais dafa yëf yëf boppam. mais j'espère que deful affaire riba di. di fayeeku te liggéeyul wala. ah, ah boo ci yoon fi ne loolu lay ah, bëgg gaa non sañul loolu nag Aïssatou Diop moom ak éthique bi muy woote dama gëm sañul def loolu quoi di. di <laughs> liggéey.